ca mbokk yi deuxième combat de la soirée dox ci diggante Yanda 2 ak Rasta Yanda 2 moom nga jàkkaarloo Rasta moo la woon ginnaaw ndaysaan ñoom ñaar Yanda 2 moo nekk caaray yëmbal Rasta nekk caaray ikiri caaray 44 ñaari caaray ñooy bëre caaray yëmbal ak caaray 44 loolu daa bokk ci li ñu defar làmb làmb nañu moytu du ma bëreeg diw du ma bëreeg diw du ma bëreeg diw day yàq làmb boo dëkkee yëmbal war ngaa mën a bëreeg mbër bu dëkk mbër bu dëkk war naa mën a bëreeg mbër bu dëkk yëmbal mbër bu dëkk caarey war naa mën a bëreeg mbër bu dëkk pikin loolu yëpp làmb la mbër bu dëkk parcelle mën naa bëreeg mbër bu grand yoof waaye arbitre bi sifflé na mbokk yi ndaysaan Yanda Yanda 2 moo la woon ginnaaw wala moom moo Rasta moo la woon ginnaaw Yanda jiital tànk càmmoñ ndaysaan Rasta jiital tànk ndijoor ndaysaan Yanda 2 ak Rasta ndaysaan ñu ngi noonu cokkaas na Rasta cokkaas na mbokk Yanda de tànk ndi joor la jiital moom nga jàkkaar lool rasta moo la woon ginnaaw baal ñu gars yi des fois dañuy jox la seen micro naan la yóbbaale ma mënul ñàkk ñoo bokk liggéey bi ñu bokk teen ñooy loxo goj bu ñu nee presse en ligne bi rek ñëpp benn lañ bu ñu ne TV TV képp ku bokk ci TV TV bi ca nga bokk ñuy jaajëfal ñëpp ku ci nekk foo ko mën seetaanee moo xam nga koy seetaanee wasaare moo xam nga koy seetaanee DTV moo xam nga seetaanee fu mu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal ndaysaan ñu ngi noonu rasta jokkaas na yanda njool la waaye xaar bi yàgg na ci ay combat xale laale leen bëre baaxu góor la ndaysaan tey fête des mères la ñu ngi ciy jaajëfal képp yaay waaye di ci jaajëfal képp kuy jigéen ndax balaa ngaa nekk yaay da ngay doon jigéen boo nekkee jigéen doog a nekk yaay ñu ngi jaajëfal képp kuy yaay di la delloo njukkal di leen masawu di leen baalu àq ndax saa su ne yaay yee ngi daw ngir njaboot dóor na ko da xeex rasta dóor na daw na Yanda Rasta Yanda biit na Rasta bañ na Rasta ngemb bu weex Yanda ngemb Lagos Yanda nga koy ronu Yanda ba koy ronu jàpp na fi mu jàpp baax na Yanda fi mu suuf daan na laa ilaaha illallah eh. am na doole Yanda daan na Rasta ndeysaan da yenn ko ba ci kaw dóor ci suuf waay yanda waay o yanda waay rasta mu ñor lamba ngi nii ñaari ndamay dugg benn ay génn muñal rasta muñal rasta muñal ay waay rasta muñal waay ay waay rasta moo sotteekoon soo mu neex bi wala du moom ara sa